asalaamaaleykum mbokki ak xaritu internet yi ñu ngi leen nuyu di leen jaajeufal lu bari bari waye nak amati mbétti dellu ak yeen ci seen émission spéciale euh, tabaski tay nak dañoo daal doxantou ba fi nga xamantene rek moy Sicap Foire daal di seet si également euh ndaanaan bu kenn dootul euh, naatable ci limuy def machallah allah euh, mu ngi yëngatu ci walu ñew euh, ci haute couture dañ koy bayyi nak mu nuyoog ñi nga xamantene ñoo ñi sétane bu ko defee ñi daal sobu ci waxtaan bi ji na nga def. ça va bien merci. ñi ngi lay dalal ak jamm ñu bayyi la nga présenté wu. man la ji haute couture Adja Khadijatou Sow nek fi ci Sicap Foire di yëngu ci ñaw bi waaw. lan mo tax ji. ji mi ngi jóge ci aji bi tur bi xama nga Adja Khadijatou Sow la ji bi diminutif fu aji bi la waaw sama mon époux donc moment bi ñi nekkee yag na mom mom dañ wowe nonu ba tour bi dem ba dadi lan. ci mom la jóge mom mom kat wowe alors. wax ñu un peu euh, fan commencé ba àgg si tu sais son papa est styliste le won, Dips lañ koy wax donc euh, mën naa wax ni si laa juddoo si laa màggee ci ñaw bi De nek ci nak ta sax sentiruma ko woon donc daanuma wacc par exemple te dew ma en ville ci magasin yi ñu jaay tissu wala ci euh, tailleur tout le temps ma ngi doon jënd ay coupons du jox sama tayeeru papa den expliquer defal ma lii defal ma lii à chaque fois dal, xamna dal daal su ma doon génn moom li ma doon jënd prêt à porter fii moom barewul li ma doon sol yëpp ma ko doon créer sama bopp. ah bon ah oui. loolu ay ay ay ban âge la won bobu j'étais au lycée koy mën nañ wax sax collège hein? boobu maa ngi collège oui say ma wàccee mom, il faut ma dem ville su ma mënee dajale goûter bi wala lu mu munti doon jënd budé coupon 1500 la sax ma ñëw wo sama tayeeru papa bi expliquer ko mu daggal ma dara ma sol.

maa ko defar defal ma benn ma defaral kenn kooku de bouche à oreille mu sol ko mu rafet kenen laaj ko noonu suma ma nak bañ naa ko ba sama tayur papi rek lay ñëw jox ko defaraatal ma comme lima ma kéro keroog ma li defaral ma li def ko ci mesure bi comme ça ma jékki-jékki sama papa ne ma eh yaa ngi may commencé sonal ak sey yi wutal benn machine ma jox la ben tailleur c'est comme ça que c'est venu nga doon jang en même temps wala da nga mujjé arrêter jang bi. boobu paré na jang ma ngi won ci commerce bi. Je may commerce bi sama ma envoyé ay dàll saak man may voyagé Casa ak Dubaï. je suis ci jaay mi waaw arrêté Je suis alors vous nga sa machine commencé avec une machine avec une machine ma teg ko ci faire kër gi mm-hmm. commencé ak tailleur. comme ça je suis commande train de ma ma Je ci sam papa de ma. je kër

noonu daal la laa débuté comme ça. vraiment sentir ma combien d'années nga nekk ce sa kër papa le temps que euh, ngay am sa. may am may génn c'était en 2006 je crois moment yooyu le woon def naa ga ay euh, trois ans je crois après si laa génn si laa génn jël boutique ak yooyu Dal nga commencé di di daggal sa bopp di ñëw da ngay dagg. non on est styliste. ok y a couturier et styliste. styliste. ñun vraiment ci waaw. mën nga expliquer ndax euh, am na ñu xamul lan mooy styliste nga expliquer ñu un peu. je veux dire styliste inné. c'est c'est c'est euh, comment dirais-je c'est un héritage. c'est un héritage De dama fait que toute la famille ci sañse la nuit la ñuy yëngu jaay tissu jaay bagage.

donc euh, mun nañ wax ni loolu don la. waaw waaw c'est bon lu ciy sant yàlla nag bu baax aussi am na ñu ko bëgg jàng ko ak yëpp te peut-être li ma ci yàlla may ñoom amuñu ko si. Mhm. tu vois waaw parce que tailleur bi dina ñaw ba pare ma téye yére bi nii su ma ko xoolee macha allah bëti ciseau la su ma ko xoolee nii dinaa ne ko lii ëpp na diwa ko moom ma ne ko ëpp na ko wala fii dina ko xat wala lii euh, xat na ko. maanaam boo xoolee. Euh, su yëre bi paree rek rek su paree su ko war a dinaa xam ne lii ëpp na ko wala xat na ko. wala épaule yi fii am na erreur émanche bi fii def na nii fii di nga ko creuser waat. te loolu yëpp nan la nan lay ñëwee nan nga koy xam. je pas sincèrement je xaw ma mënu ma ko expliquer. dafay ñëw nii rek comme saa sincèrement xaw ma xaw ma ko vraiment. ça vient comme ça donc c'est un don. waaw ma ciy <laughs> sant suñu borom bu baax a baax bu wér sax. alors bi nga bi démarré ce ce, li nga xamante ne sa atelier. Mhm. nga en 2006 je crois 2006. 2006 nga ibbi atelier. 2006 non pas ubi, c'est là que que si la c'est finalement installé première machine bi. En 2006. d'accord. La installé première machine parce qu'au début je me dama doon ñawee si euh, comme ni ma la waxee ak paa bi. Mhm. di dem en ville. Mhm. déplacer. placer. léegi yow ban ban année nga nga nga dugu carrément nga ibi sa atelier sa yëfu moy bima bi moy kiiwee mooy ci ben bima démé demee ba aménagé garage bi nak la xamni je suis vraiment dedans quoi voilà ba mu garage en 2005 hmm, ma aménagé garage bi ba défat benen machine. c'est mhm. la xamni la je suis dedans. Tu es dedans. Ouais, à 100%. Alors, comment ça se passe ñaw yi haute couture ngay ñu def. Oh, waaw lan mooy haute couture. haute couture bi nga xamante ne ñu ngi seetaan te xamuñu ko. haute couture bi man damay seet lu ma soigner sama liggéey le maximum possible. Mhm. d'un côté autre côté je naa wax ni xale yi sax ñoom ñoo moon ñoom ñoom ñoo ko parce que au début dama ne attends mais pourquoi pourquoi faire ce que tout le monde fait lu tax duma change tuuti indi dara kat innover pour la ñuy dem si prêt à porter comme ni ma def avant étant jeune prêt à porter yi du ma ne du ma ci woon dem. Mhm. peut-être man j'étais plutôt garçon manqué j'étais en jean basket affaire yooyu tu vois. Mhm. donc ay robe ay jupe yooyu mooy loolu quoi. Mhm. Euh, ay o o bu mu sol nag ak lu mu sol su may dem xew man maa koy ñëw sama man maa ñëw expliquer tailleur bi pardon mu defal ma li ma bëgg. bon.

mu nekk loo xamante ne accessible xale yi suñuy génn bëgg a sol yooyu robu soirée bu rafet mu bañ cher yenn cher bobu libanaise yi ñoo fi nekk di jaay te du ñëpp ño ño am bourse bobu ay robu cent ah, mille et quelques je voudrais faire pour toutes les bourses tu vois mm. pour suñu jeune âge bobu xamé amuñu won yenn euh yi pour euh, yenn comment dirais-je yenn somme yi pour euh, atteindre yenn kii ñu bëgg quoi donc muy indi euh, catalogue bi tek won ko am ku njëkk a ñëw tànn rob bu compliqué ma ne ko dama koy ñëw mu kii ñu jëlee ko mesure ba femme bi dem ma jàpp sama bopp ñëw yoo mu ne ma ma ne ko lii de la tànn mu ne ma lan lan lan lañ ma ko lii lañ koy ñawal ba ma ko ñëwee mu réussir ma expliqué ko nu muy jaar tissu bi ban étoffe laa koy defee ak yëpp ba defar ko ba mu jaar yoon kooku mu njëkk kooku moom moom ji haute couture damay haute couture ngay def foofu la jógee c'est damay haute couture ngay def. parce que catalogue c'est la perfection donc si ma li haute couture différence ak que euh, différence. différence pour moi, couture bi à part euh, ñaw sophistiqué mais taille, la finition bi te finition dafa am solo ci finition dafa am solo si ni sama di waxé que dafa bëgg yéré soko mu rafet soko simé ko ci lal bi mu dëpp sax rafet. rafet dëgg na yow. vous ah, kay man ko couture bi man orienté ci euh, qualité ñaw bi ak finition bi modèle bi qualité bi ak finition bi. Mm. Ah, vraiment et puis vous le def nak ak euh, normal ci man parce que la gis sama papa di mm-hmm. mu normal ci man surfilé ba mu baax ubbi ko ba mu jaar mais elle a ñi di oh, surtout finition ah non elle fait une bonne finition mais attends mais pour moi, c'est normal la. Le normal la vous normal la. après si la commencé di dire xel vous gis ñaw di ko ubbi di gis ni ah bon comme am ñuy def

tissu cérémonie yi hmm? ay tissu yu may importer la man mako jël di dem di ko jël sama bopp def choix yu yu yu metti jël sama temps indi say tissu waaw waaw damay dem jënd sama tissu waaw dama koy dem man may dem jënd sama bopp jël sama temps nak set lo xamanteni lu rare avant may dem non bop xaar sax ma kii sino damay sama <laughs> mais mais ñu si rek. non waaw su ma demee daal damay xool daal nu ma gën a gisul fenn fi Dakar. man fofu lay dem dal opté wu lool lay jël indi ko dal waaw ah, j'aimerais bien. Euh, manam bugo lu bari lu bari non non bëgguma ñuy ñew di ma wax. ñew do ñew lu xew. lu xew euh, bon nan la koy expliquer mënuma ko baña ñaw mënuma ko baña baña ñaw tendance la tendance il faut nga top ko touti mm. mais man damay préférer di innover ak di am waaw mais tant il faut non mënuma baña ñaw lu xew mom il faut nga top tuuti ki bi hmm? parce que nit mën na ñew bëgg ñu ñu xam nga Sénégal dafa bëgg ay lu xew li moo xew. Mhm. dañ ko bëgg dama leen ciy jéem a dévier tuuti ne léegi su ñëpp ñëwee sol par exemple nga ne lan moo xew nga ne tulle ñu ne ma waaw léegi su xew bi ñëpp solee tulle yow nga ñëw sol tulle da ngay tu passes inaperçu ñëpp suñu solee tulle doo ñëw sol nangam kaay ma defal la lii ak lii ak lii. yow soo ñëwee ñëpp ñuy solee tulle soo ñëwee yow yaay fës yow yaay gën a feeñ di leen gën a di xam nga rek noonu laay kiiwee daal noonu laay gisee man mhm. pour man daal lii moo xew daal man na si damay mës a jaar à côté man bu dee lii moo xew rek man jàdd naa bu dee dama ci nekkoon sax naa xaw a du ma dama koy bàyyi complètement dinaa xaw a esquiver wu tuuti déema seet gaaw leneen lu may lu may mën a dugg gaaw mm-hmm. hmm? waaw noonu lay def daal. Euh, euh, euh, yan yan yan xeetu tissu moo gën a nekk tendance actuellement ndax loolu moom boo toogee tailleur foog nga laaj ko ndax mhm. actuellement ñu ngi waajal li nga xamante ne mooy. tabaski bi mhm. jigéen ñaa ngi ñawlu et tout. Mhm. ku nekk ak sa couleur ak sa goût. ndax dañoo nekk ci été tamit en même temps. yan couleur mooy gën a vif actuellement lañ mun gën a mun a utiliser ak tàngoor bi. surtout war nañ ko sóoraale waaw. je dis toujours du blanc je suis à 100% blanc blanc mm-hmm. j'adore cette couleur. de dafa dafa neex ci yaram dafa mm-hmm. kii ba na ci hmm? rouge intense couleur bu kii la ak bi mais dafa xew dafa génn orange orange fruité hmm? c'est des couleurs vraiment été tendance mm-hmm. orange fruité jaune ensoleillé Il hmm? y dañu des am na euh, comment dirais-je beige glacé des couleurs yo xamé couleurs yu la soo ko sax euh, manam ah, da ngay kii brodé ci brodé wala brodé parce que brodé bi coton la te coton baax na si tàngaay bazin hein, mm. juppu bi juppu bi légui dañ ko defe ba mu ba mu en coton tu vois mm. Mm, du chantoum bazin yépp coton coton la yépp coton la mais chantoum mi du tanga ça dépend chantoum am yo xam coton la yépp coton base bi coton la

tey bas daal ma la la gën a sentir sans bob tey bas daal ay toq tey baas yu ndaw yu pa pas top yoy parce que damay bañ ay ay ay biir feñ yu yuy lang yooyu ak ki yoy wa yoy non c'est insolent. waaw <laughs> bas yu top yu réglé longueur bu nickel. classe wa la classe bi waaw. tey yu rafet dañuy def ay coupe coupe yu yu rafet rek yéré yu am classe dame disquette jeune fille âge

ah mais événement tamit. il le faut mooy bëri de foofu am xaalis. Ah. <laughs> am xaliss am xaalis non non non. man du côté bobu sax parce que man coono bi ma ci coono te ñëw na tabaski ñëw na tayer ñi ne ah suñu traite ñëw na. man man man man euh, sama liguey euh, nu ñu koy waxee au jour le jour bu dul euh, période boobu. Mm. man si la gëna sentir sans bopp. si laa gën a sentir sans bopp mais lutax ma koy def client yi mëno leen ñawal année bi yëpp lu ñu xew la ñëw si yow tabaski jot. nga leen arrêté na wala mënuma ko jël lool nak man moma sonal. mais da ngay baré jël. ndax li nga jël di nga ko respecté. ah oui ah oui machallah man ci sante suñu borom machallah man ci sante suñu borom vraiment vraiment. mais yow amo problème ci yenn client yi nga xamante ni dañuy ñëw tay la sen ñew et tout. si lool bon. <laughs> bare na moom bare na mënu ni si ñàkk te des fois tamit xam nga rek aduna mom dafa dafa dafa hein les mauvaises surprises hein nga ñëw yobu sa ñaw ñu jox euh, rendez-vous nga bëgg ko jëli am lu la euh, la bu non sa sago nga dem jëli sa sañ sa euh, da ngay def prêt-à-porter oui dañuy def prêt-à-porter da ngay di à l'étranger wala comment ça se passe. ngay tout tout tout. rek. da ngay ni da ngay ni jaay. wa tout tout tout gàttal nga wax tout tout, tuuti tuuti la. da ngay ñëw <laughs> waaw dinaa waaw waaw de temps en temps. ok de temps en temps. de temps en temps waaw. da ngay jaay fii aussi. prêt oui prête à porter oui. Uh-huh. ok alors mun nga ñu wax euh, en tant que jigéen. Euh, en tant que femme mariée. Mm-hmm. Euh, naka ngay gérer ce atelier. kër gi njaboot gi naka naka lay c'est un peu compliqué. chance bi ma am chance mais ma am je travaille avec mon

su ñëwé diw moma wax wax wax wax wax wax diw moma li rek rek rek ngay dégg rek ngay dégg. di lay def ay exposé de temps en temps wala da ngay bokk ci ay défilé lan nga mus a def. défilé mais privé la ay club yo xam des fois ñu woma ma défal defal leen défilé mais amuñu chance di ko kii parce que c'est des clubs privés. ak lan défilé waaw des fois ñu participer ci ay ventes privées. waaw ay groupe yi def vente privée woo nga participer ci ay mm. week-end mm. yooyu tamit yu neex la yooyu noonu yooyu yëpp moo ma gënal ay ay ay event ay kii événement xaw ma côté tabaski mm. non dafa bari coono <laughs> oh là là c'est compliqué alors dafa bari coono suñu temps jeex na jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoog ñi nga xamante ne ñooy suñu bokk internet yi waaw lan lan lan mooy sa dernier mot nga tàggatoo waale ma leen di souhaiter une très bonne fête di ñaanal tailleur yëpp ñu livrer ñaw yi

merci euh, di jaajëfal euh, également ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan taamu nag Dakar Actu saa su ne di ñu bëggee ñu ngi leen di bëggee ñu nit bu baax a baax kontaan ci yéen waaye di jaajëfal sama caméraman yi ñaawul yi wu ñu taayu ñu benn yoon kooku di sele euh, di jaajëfal Thier ak nabu également di leen jaajëfal te di leen ñaala nag tabaski bu neex a neex jóobeen yi na ngeen moytu nag merci à tout le monde allez <laughs>